salaamaaleykum waa Mouhalim Sport TV jërë ngeen jëf wuy leen di abonné tey commentaire kooka di Gabaski moom daasim góol égyptien bi ak kay tàggat égyptien tudd Carlos Queiroz ñoom ñaar nag yëkkati nañ ay kàddu Carlos Queiroz nee na ñëw nañ Sénégal li ñu fa indi nag mooy am ndam te it Sénégal seen attaquant bi dañoo wex xaat kon nit bu ñu ñëwee dañuy taxaw suñu séeréer duñ dem kon nag jàppale ne égyptiens yi ñoom duñ dem Gabaski moom nag li mu wax moo di Sénégal kat dëkk bu neex la ndeke man kat xaw ma ne woon nii la Sénégal mel moom Gabaski moo ko xamle waaye it nee na lu muy neex neex ndam moo ñu fi indi moom Gabaski moo ko dal di xamle Carlos Queiroz ak Koké di ah, Gabaski ñoom ñaar ñëpp daal yëkkati nañ ay kàddu jëmale ko ci Sénégal gépp nee na daal dëkkub Sénégal neex na trop waaye it Sénégal yeru nañ trop loolu moom ñoom ñaar ñëpp xamle nañ ko kon nag match bi mi ngi war a am mardi wala mën nañu ne suba lay am waa match bi naka dina teel a commencé ndaxte 18 lay commencé waaye it daal lu ci mën a am moom mën naa am ñu defal leen ko en direct ngeen di ko am fii bu kenn daw bu match bi commencé rek ñëw leen fii ci Mouhalim xaar ko fii kon nag sama gars yi égyptiens yi ñoom ñi ngi waajal seen bopp bu baax a baax waaye naka ki nga xamante ci ni moo di Sadio Mané moom it yëkkati woon ay kàddu nee na daal sénégalais yëpp nañu dalal seen xel te xam ne match bi moom sunu match la ka nga xamante ci ne nag moo di Carlos Queiroz moom nag nee na équipe nationale de Sénégal kat attaquant bi dafa diis gan attaquant bi kat daanaka suur yëpp di ñoom gaaw ka ko xam ne nag moo di Carlos Queiroz moom may tàggat égyptiens yi Gabaski moom la mu wax moo di Sénégal kat euh, leen dalalee topp leen di leen yi ñu ngi yuuxoo ba tey jii mais nag li gën a naas moo di laseer yi moom na fa bëri trop mais nag bu kenn xaañ kenn bu kenn daal li ñu waroon li ñu defoon ci kan mooy dem jëlee ko indiwaat ko biir euh, Sénégal gii na ñaanaat suñu borom subhanahu wa taala loola daal dañuy daal waaye it bu kenn andi laspère na ñëpp jug daal ñu andi laseer yi ñii leen ba ñuy bëgg dee ndax laseer kat ñu ci suspendre mënuñu ci andil benn problème kon naka gars yi loolu mooy ndénkaan li waaye naka na ñëpp jug waajal suba na ñëpp dem stade ba fes jàll yoo yi saf sàpp Sénégal yi teebal bi di doxal bii bëri trop ñu gañ a match booba bëggal Sénégal yëpp kon naka ñoom Sadio Mané yi li ñu bëgg mooy bëggal ñu kookee di Pa Abdou Ciss bu laay ji ñoom ñëpp yëkkati nañu ay kàddu la bëgg mooy andi ndam li waaw maanaam ngi nga Sénégal mais ñu leen ndam li ba ndam li daal du dem fenn fu dul fii ci Sénégal waaye kat gars yi daal di dem ca Qatar dal di fay teewal Afrique kon nag Sadio Mané moom it mi ngi ñaan Pa Abdou Ciss ñu ngi koy xaar ci match bi ndax mooy rampale kookee di Abdou Diallo Gabaskeka Carlos Queiroz ñoom tiin nañ jamono ji abonné leen